moo am ndax benn ba daa yàqu waaw xoolal Fat Fat la mu indi waaye xoolal leen ma Aliou Fat Fat la muy indi mbooloo bu Siteu bu Siteu ki nga xam ne mooy Aliou Fat Fat arbitre baa ngay xool ki nga xam ne mooy Bou Siteu ndax am na wee wala amul wee ndax gàjji bokkul ci làmb Siteu waroon koy paas bu doon jigéen la ma ne da koy paas visite waaw moom Siteu Ndour mo ngay wax ak moom di wax ak moom ndeysaan moom ki nga xam ne mooy Bou Siteu ndeysaan am na lu ko ki Siteu naan ko defar ko waaye Aliou Fat Fat mo ngay jaagat jaagat rek di dem ak a ñëw moom Aliou Fat Fat nee ñoom ñaar ñëpp ci defet lañ jóge ñoom ñaar ñëpp ci defet lañ jóge aha bëgg combat bi pour génn ci parce que kenn kenn ku ci ñoo kenn kenn ku ci nekk bu perte combat bi bokk na ci lu lay gën a wàcc da ngay dem xale yi dañuy ñëw ci sa kaw nee naa la fii boo boo fi daanoo golo gu ci yow lay jàngee yéeg ndeysaan si door génn na seen diggante fas yéene arbitre baa ngay wax ak ñoom li nga xam ne làmp bañ na ko ak li làmb nangu ndeysaan Bou Siteu ak Aliou Fat Fat ñu leen di wax Bou Siteu moo leen wan ginnaaw waaye Aliou Fat Fat moo leen wan kanam bu ma neexee ma ne leen Bou Siteu moo leen wan gauche Aliou Fat Fat wan leen droite acca arbitre nee na ko ndax pare nga mu ne ko waaw buu ko pare naa mu ne ko waaw arbitre sifflé na génn na seen diggante Bou Aliou Fat Fat ñaan na Bou Siteu ngi taxaw mu ngay mel ni kuy dox ci ku nekk teg na sa pied droite ndeysaan fausse garde amul foofu ndeysaan mu ngi noonu Aliou Fat Fat bu Siteu ndeysaan maa ngay gis Diatta Diop ànd ak ki nga xam ne mooy santan ñi nga ànd ak ki nga xam ne mooy Boy Mbour ndeysaan ñu war a jàmmarloo ak seen diggante ak Doudou Sané waaw le combat de l'année Mbour Diofior waaye Bour Sine général Malika Jackson ñàkk jariñu e xool leen Doudou Sané mu ngay cëppi cëppi di dem ak a ñëw yàlla di dem Aliou fat fat bu ñoom ñaar ku nekk nga ne tekk ñuy lewtoo dimbali leen ñu de du ngeen Tapha Mbeur du ngeen Gamou Gueye bëre leen ooy <laughs> fi mu toll banaa la daggee rek ama seen bu Siteu Tapha Mbeur <laughs> bu Siteu ta <laughs> Aliou fat fat maa ki nga xam ne Tapha Mbeur moom a Gamou Gueye na leen bëre ngeen ay arbitre Eh, arbitre arbitre aka ñoo mën a boole <laughs> nee ko nañ daje rankum daje Bou Siteu Aliou Fat Fat Bou tibb na suuf xanaa day dóor dóor buntu la Bou Siteu Bou Siteu Bakar Laurent yaa ngoog Fat Fat Xalilu fat fat dugal na ku waaye yeggul ay waa xoolal ma Laurent mu diwoo ay Laurent lu mu diwoo eh, bu Siteu bu Siteu Aliou fat fat Aliou na koo jël tànk ba bu bañ na arbitre da nga naan bu taxawal bëre waaye bu bañ na bu Siteu tey saf nopp dégguma arbitre baa nga way wax bu Siteu Aliou Fat Fat bu Siteu Aliou Fat Fat eh arbitre da ngay wax ak tey lan indi tey bu Siteu ni mu ñëwee ah, ah. Euh, kuy indi victoire du ñëwee noonu maanaam comme confiance ci combat amati na deuxième avertissement. waaw. te tamit la. waaw daa arbitre mu door. arbitre daa sifflé mu parce que dañu arrêté woon. dégg nga loolu. waa eh. Bou Siteu Aliou Fat ay ay sama caméraman bi mun na woo munoon a lii. puus waaye mënu koo jël dégg loolu Aliou Fat Fat da door Bou Siteu Bou eh, boobu dal na Aliou Fat eh, boobu dal bu Siteu Aliou Fat Fat bu Siteu Aliou Fat Fat dóoral jàpp na ko jéem na koo takk mu bañ fàq na ko bu Siteu Aliou Fat Fat Aliou Fat Fat bu eh, eh. ñoom ñaar ñoo ngay wure eh, eh am Ndiaye joxal Diop am Ndiaye joxal gaa ngay bari am Ndiaye joxal Diop na ko moom Aliou Fat Fat ay jàppante nañu jàppante nañu bu am na ngeem bu Siteu Aliou Fat Fat bu Siteu Aliou Fat Fat bu Siteu Aliou Fat Fat bu Siteu Aliou ñoom ñaar ba ñoo nga ca ñaari xale yaa ngay bëre bu mu dóor xeex ci combat bi moo ko arrangé eh, jël exceptionnel xoolal ma lii laa ilaaha Aliou Fat Fat daan lii da dara ci làmb ji eh, tey daa sax noo bu dégg indiwul victoire. indiwul victoire daa sax noo bu dégg ma. na ko samp ñaari tànkam woyale ànd ak moom daanu ci suuf ma lii ñoo kenn moo wax la làmb foom góor la ku daanu wéet Bou Siteu a kan mooy dugg si kan mooy dugg si noonu